waaw bala maa mën a wax daal murid danañ tekk rek déglu ma ba noppi ndax kàddu yi may wax ci moom la jëm loolu la yàlla dogal ci man sëñ Modou Touré mu baax mii ñu gën koo xam ci caw ruuma nga xam ni ku monteelut ruuma foo ko mën a monte day day yëngoo ko kii kiit yi waaw sëñ Cheikh may jëng mii ñëw na ko fan yee mu boole ko moom mu jaay koy ruuma ma koko ko ko mu baax sëñ Modou sëñ Modou Touré daa wax ni mi ngi lay nuyu waaye mi ngi lay ziar te bu la nuyoo nuyu na boppam nuyu na am di Moustapha moom nga dendal ndax yéen benn ngeen te loolu yàgg bis bi nga def nii xolam da cee sedd ndax loo mos a am ci àdduna ak loo mos a am yéen a ko ànd waaye bisub tey bi da ci raw ndax dañuy wax ni kilo tudde doom ak kilo la tudde bis rawatina bisub sëñ Tuba ñoo yem ci yow te xam naa seen diggante xam naa ni am ngeen yéen a jutal ni kenn ku tudde sa doom mu wax ne xolam sedd na lool am na mbégte lool nee na mi ngi gën a yeesal seen kóllëre murit li nga def dafa rëy ndax man leer na ma ni bu doon daa am loo ci wut rek muy alal doo ko ko tudde ndax caw mii caw ruuma yàlla wëcc ko de waaye ku defee xam a ngi nii barke Seexu Xaadim kii uma ki dafa ñew Touba jogi seen dekk di and ak man ci xasaay lolu yag na nuy and ci xasside yi ba yalla bo leen bokk benn place bu ñu jàngi métier métallique ah. place bobé fukki fan ak juroom ñaar la fa xëy daara yu yóbbaale ko ñew ñu dàq ni ma damay yàqaale caw yalla dogal ma dem bam yag ma ñewat garas bi di fi jaay rouma ak i fek ko mom mi mu ri ko def mu teg ma ci yoon booba dama doon to waaye borom ngi ni bima ma ñëwee la mom saa da set. am di ma joxee place bi ma xamni ma moma moom lo jàkkaarloo da set xam ngeen jànkat day mën dox yéen ko gëna xam dem rek dama ubbi sama place bayiko fa dem ah? ta daa place nak te ku taxaw sama place mu ñëw jaay la yàlla noonu doxee nag jàngal métier ba ma man nit ku baax ñu nii client day taxaw li muy jënd mu am ko ma am ko mu ne ma jaay te moo koy tax a jóg barki Sëñ Tuubaa murit boo doon làmbutu tey daj nga kii nga tudde bis bi nit ku baax a ngi nii nit ku a ngi nii nit ku am yéene ci doomu aadama barke Seexul Xadim waaye yéen ñaar seen diggante li ma ci gën a neex te lu may wax dama ci boole am mooy wóolante gi ngeen gi ngeen wóolante nga xam ni yéen ñëpp seen mbir benn li gën a foor ci doomu aadama ci xol mooy alal te seen alal kenn seen alal kenn xàmmeewu lu wut sa xaalis ba mu bëri wala ba nga jàpp ni tonaw na nga ñëw jox ko mu téye doo xool lu ci def ak lu muy bàyyi loolu leer na ma waxoo ma ko waaye xam naa li xew barki Seexul Xadiim kon yéen ñaar du ngeen ñaar kenn ngeen seen diggante bu yàgg na lépp rafet waaye lii nga def du ko gën a rafetal caw nag nee na xolam na bu sañoon baas bii moo koy baas togg ñam yi joxe ko lu fi waaye war a def mu def ko ànd kook ay bokkam ak xaritam ak am di jàmm waaye bu xëyoon ba guddi wala ba suba jaaru fi bu yablee sa xol seet xam naa fi ngeen toll yéen ñaar tey bi añ jotee dangaa woo caw ni ko ñëwal mu taal ma tuum nu ànd ma ak moom waaw caw day teralaat loolu lay def da lay teral day teral seen góor dina teral ñëpp tey bis bi sunu xol da set Cawal bi mi ñew da and ak délégation bu ma sët am nag mbolo mo xam bu buñ ko doon lim fere ñuy fam waye nak du ñak rek ñu tuddu di ñan ndax seigne fallu juuf mu baax mi seigne fallu juuf mi di jànkatu xasaay di ku baax sëñ Modou caw mii la àndal ñëw waaye sëñ Modou ànd naag sëñ Xaadim Touré muy magam di kilifaam ñoom ñaar ñu bokk na te garas ba te lépp rafet nag sëñ Xaadim di ku baax sëñ Modou ànd naag moom ñëw ànd naag soxna yu tedd yi nga xam ni ni ko sëñ sëñ Ousmane waxee léegi noonu la demee nii ngeen def xam ngeen ni coow leen bis bi de Mbàkke Moussa Wa Mbàkke du ma ko tëb ci laa njëkk tudd ci adduna sëñ xaadim mii ngay wax akasa sëñ xaadim akasa iphone moom laa njëkk a tudd waaw waaye nag am naa kilifa gu tedd sëñ Abdou Lahad Kebe mu baax xam baydat bu la ba xool nga nam def ku yarute rek léegi ne barke borom Touba Mbacke sëñ Abdoulahat Kebe te gaaras ba dend ay palaas muy nit ku baax sëñ moo wax ko bés bi mu ni ma mu nit yàgg na maa wax musuma caa dem waaye tey jii tudde gi mu tudde caw dina tax lu métti métti ci man dinaa dem ku ne xam na ne xidma yii ne ci jumaa ji waaw dana la tere xidma waa daayira xidma bii ci jumaa ji guddi ajjuma dañuy bare mu bokk bokk ca jawriñ ja waaye gis nga li mu def def lu baax néew bu yàgg na ñëw di fi xaar caw lu bokk fi ne waaw sëñ murit day ñëw di ñëwaat murit lii ci saa poos bi diis na ci saa poos bi lool kaay saa poos bi li ci nekk nii diis na lool bëgg na maa tàggoog moom ñëwal waaw lii ma moo Touré jox ne ma naa la ko jox boo ko peesee moom lu néew néew xam naa moom 3 tonnes yi dana tegal dara cawruma xam nga ni gis waaw xuma nee na jamono Abdoulaye Wade la ko gëj a ambiloo kaki moo nekk nii yu weex yu ndaw yi rek lañu joxe léegi waaye bii barkeel laa jëfal du ma tudd li ci nekk ndax jëru ko nag waaye boo ko teppee ci jàmm di xam nee na xorom sant na la gërëm na la nee na mi ngi lay ñaanal ci doole yi sëñ Tuubaa xasaay di nga yegg te yeggale yàlla bu la dara dog sëñ murit sëñ Ibrahima Kebe ñoo ngi koy saare di saare baax sëñ am di ci am moom it ni ma ko waxee ci délégation bi la bokk ñoo ngi jéglu bu baax a baax Modou Thiaw mii waaw kay Thiaw murit nee ma sant la yow ndax nee na man na maa wax ci moom waaye man na maa wax ci yow ndax yéen ñaar benn ngeen nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ndax day génn na ci àll bi ay weer bàyyee la këram soxna Mariama mais fu mu nee nee ñëw lépp yi rafet yal na yàlla defal la jàmm barke xasaay bi noo ngi nuyu baax soxna Ami Kolle ñaa ngi toog. ak soxna Mbène dana ma ko waxee léegi ci sëñ Xaadim noonu la demee ñuy samay ñuy samay samay goro di nit ñu baax a baax a baax sëñ Cheikh may Dieng dànkat maa ngi lay saare ak dànkat yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ci délégation sëñ Mourou Thiaw lañ ko ndax moom jànkatu xasaayit la bu mën a jàng ba pare yaru sëñ njàpp mbay mais nga xam ne du jóge ci sëñ Modou ñuy ay waay te ba mu dalee ànd ak moom mu yàgg lool moo it délégation bi kon nag ku fi ne rek ñoo ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm borom bis bee toll noonu moo tax wax ji du mën a gaaw. wax nga ko ndax ni ma xamee Serigne Modou Touré noonu nga ko xamee wax nga ko sànq maag moom samedi dimanche la bis doxul ci diggante bi ñu bokk benn wasi la bokk benn teen bi ñu naan muy kër maam Cheikh Ibrahima Fall suñ buntu ci Cheikhul Ibrahima Fall Lamp Bal Serigne Fallou Fall nu bokk benn tool boo xam ne ci la ñuy roote bokkoon jenn daara lépp rafet ba tey ba kenn ku ci nekk yaakaar naa yaa ngi responsable boo xam ne doy na la sëkk ci yitte ndax ko yor soxna yor njaboot yaakaar naa fi ne kenn ëpp lu toll responsabilité ndax ñëpp yi def yaa ngi koy def te foofu toll nañ fa maag moom ak sëñ Mouride mii nga xam ne moo woote bis bi. bis bi nag ku ci yàgg ñëw ku nekk rek xam nga ne bis bi dafa yàlla yàlla gim yàlla mooy murit waajuram bu góor la ci ñaanal te ku ne xam na ne waxtu yi def ci bi sax ñaari ñi gàttum xel day jàpp ne dara tax ndax fi ne ñu ngi dëgmal tabaski waaye bis bi day ndigal loo xam ne murit mënu ko toxal benn bis boobu la am muy fàttaliku waajuram te ren li ci dolli mooy waajuram bu jigéen daaw fii la nekkoon ci kër gi toog nii suñ borom dogal mooy moo wuyu kon muy ñaari mbir yoo xam ne kon mën naa ne la waajuram bu góor la ci fàttali ko ak waajuram bu jigéen bi nga xam ne moo ngi daan wettali ci kër gi bu yàggu mu jóge fi nag yàlla mi nga xam ne moo ko jël kenn du xëccoo ak moom moo tax mu bis ci wet mukk ndax ñi nga xam ne ñoom la jàppanteel ba dimb ak ba tey ñoom la jàppanteel ba ci ñaari jëmm yi nga xam ne rek ñoom loo ko dara jaale rek doy na sëkk ci ànd bu rafet ndax li jiitu lii lépp di am mooy ba mu nekk këriñam nga xam ne toxaseegul fii sax muy si Abdoulaye Diop mu baax mi nekk ci garage bi di def lu baax ci jànkatu xasaay yépp nag nga xam ne yemalewu ko ci murid dong am ñëpp xam nañ ko sëñ Mour Touré moom it la même chose teraangaam yàgg naa ñëw fii te booba du ay tànt wala du yeneen ak yeneen da koy def ba noppi noppi ne cell man maay toog yàgg sax murid ma ne ma caw leen na fi nangam ak ci tawet ji fi jaar rek na fi joo xam ne jëf na ko lu mat ñaari weer murid te jékki-jékki woo ma téléphone wax ma ko te moom mi ko def sama bopp barke Sëñ Tuubaa wallaahi al-aziim kon moom yàgg naa def loo xam ne suñ borom rekk a tax bis yi nag dafa mat a leeral ndax yu mel nii buy am te nit ñi buñ ñëwee dañuy déglu ci te buñ demee dañuy nettali ci kenn ku nekk ngalawaay booy dem am loo nettali ñi mu ko tuddee dërëm taxu leen mu tudd leen ko seen kóllëre la bëgg a gën a dëgëral moo waral mu jël bis bi cërale leen ko monsieur Abdoulaye Diouf mii dara jaaru ko sëñ Modou Touré noonu la bis bi demee na ko ñëpp xamee ay noonu waaye bis bii sëñ Modou du ci wet mukk ndax moom sëñ Touba mi nga xam ne mooy sagal ak jaamam mu ngi koy sagal ci biir ak biti mu yëg ak lu mu yëgul sëñ Fallou waaw. li ma gën a neex ci moom mooy xam naa sama aajo te man xam sama aajo yombut pharmacien bi mu yor lu détaillé day engrais benn bis ma jógee fële yor benn ordonnance bu ma jaaxal ma dikk jox ko yaakaar ne détaillé mu ni ma du ma détaillé waaye demal jox ko ki ma dendeel ma jox ki mu dendeel kam dendeel daal may jox garab ma dem ma yaakaar damay fay ñun ma demee rek garawut dinaa ko fay. si xablaat Diop mii bis woo ma jox ma bassin riche boo xam ne ba léegi bassin baa nga ca kër ga yàquwut demul fenn si xablaat Diop jàmbaari Serigne Saliou borom Ngot borom Njàppandal borom Ndoka borom Xelkom borom Njurul borom Daara Ñibi Ñaan bàyyi Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou Serigne Saliou bàyyi Serigne Jili Saliou Serigne Saliou bàyyi sëñ Cheikh sëñ Moustapha Serigne Saliou sëñ Cheikh may kaay yëkkati mu wax kàddu bismillah awar na waayina um, fi ma yara basarul barun awaliya barun awaru li badri sëriñum Cheikh Ibrahima Fall def na magal daa bay maam say njaay mil badri nuurun asimun isanaari bi لكن سالم للشمس إسرار للغزو طول لدى عين لوى نصرت لكن ساعة لوى لم تنبت أشجار يكون للبر ماء تاب مشربه عينا من خليج البر يختار أتل ماء ولا كالوبل منسجما ولا تجار ندى بالماء يمتار ساك الملا سلسي أرجو نجاة به دنيا وأخرى فليتي ونجار borom juma ji neena iya umah, yawma min sara ma joba karani to diik ahmadan joba sun ba manena samam inaba aw khaba hatta sara sawadin falan yasalu radina aw du mahbaba lakina lintu bi ana la malikuna mata yara qadamin kana جمام فحبلو يا إلهي نيل مطلبي وابتنو كل ما من كان محجوبا يلبي لدام دفن تباي أحمد مي لقل في جارم تيارك تك بابا بلاي بركة سيخنا ساخل بتيجي سدنا ملنا ماغا أجنا ngir liñ ma booleeg Serigne Saliou ku bëgg a tàggoog bàkkaar ji ko taxaw màggal Serigne borom jamono bilaay barke Seyxuna sa xol bi tey ji sedd na maa nga ajjana ngir ma booleeg Serigne Saliou bismillah yéen murid fi laay dale samay waxiin ci laay dale samay jëfiin ak barkeb Serigne Saliou nun sant yàlla war na noog moom ki boole noog ci giru bani Adama boole ci noog Serigne Saliou doon na sun borom moo def ñu mbaam yi ak borom ñuy root di jaay pat juróom te duñu ñu jox sëriñ saali mbaate mu def ñu ak gëlëm gu rëy rëy gu dee fi yëm guy saf xorom fi ba mbuleen di teggi sëriñ saaliw bay laat nan sant yàlla mi hakim moo كيما دفت يا مدام شيخات مصطفى الكريم قريت باي سالم الف صلاة وسلام علي بالال الكرام اللي في مريد انا كندام بصف باي سالم من نونو دف نصران نيو دي مولم القران ماتي هون بي جمران تكون مريد سن سالم من نونو دونو جلي دونو جف جف جلي sakkade andi gi muy yi sopp bàyyi saali muri sàjjant man fii dale yàlla na nu yàlla dimbali ba man di daal da yàggale cant gu jëm ci sëriñ saaliw sant ko sax da nottu nan ci wur na yàlla rabbana def lañu nu màggal bàyyi Cheikh Moustapha Absa borom Daaru Rahmaan borom daaroomul Absa ku sopp Cheikh Moustapha Absa jugal taxaw magi xaadim bàyyi xaadim surtout Mame Balla ku sopp Cheikh Moustapha sant borom daaru murit sàccant man fii dale yal na nu yàlla dimbali ban man di daldi àggale sant gu ci Sëriñ Saaliw bàyyi laat sant ko sax lool du ci war na yàlla rabbana ay waay xanaa dama yéene te naan jaajëf Sëriñ Saaliw yaa rabbi dolli koy cofeel ci moom te dolli koy ngeneel te jàpp nal ko jafe di man masaawu saaliw murid murid yi maa ngi leen di woo jullit yi maa ngi leen di woo waawaa adduna bi bu laa di woo ci sant gi ci sëriñ Saliou Baye Laat majalla nag sant kii tax ñun ñu jékki fii te tala wax sant gi wér te yàlla tax jaajëfe sëriñ Saliou bu dul moom ñu torox te kon dinañ xëy ni sërëx ci kàmb gu kunte ba mag doo dégg Serigne Saliou mu jël nu tàbbal nu ci biir këram di ñu lim nag ci ay ñoñam léeg-léeg mu wax nu ak bëggam moom kii di Serigne Saliou lim ñu defal moo dàqu nguur ndax bis bu set ñu añ ba suur bu reer jotee ñu reer ba suur di sant Serigne Saliou ku bëgg a tàggoo bàkkaar di la tax a màggal Serigne janatul maxwa gaañi nan sant Seex Saliou moom mi tax tey am xéewaloo muy danay Seyxuna Xaadimoo gur gi jaar ko ki jaar may lii du yoon wow xadim mas la doñ mas la juum fas aloo seet saaliw mooy xiyaasul la naat xutbuna muy ligum gaañi nan ci jàngale yar ci diine yaa ko wan gaañi lan ya caloo sant nanu sant nanu ku sopp borom daaru defal nu sant nanu sant nanu ku sopp maam coono borom daaru sant nanu sant nanu sëñ murit sant nga sant nanu sant nanu Seex Awa Balla Baax sant nanu sant nanu Seex Awa Balla Baax sant nanu sant nanu Seex Awa Balla Baax sant nanu sant nanu ku sopp sëriñ sar jugal jaayu sant nanu sant nanu sangub Seex Abdulaay Jóob sant nanu nan sant nan Cheikh Awa Balla ba sant nan sant nan ku sopp Cheikh Modou Awa nan sant nan nan Serigne Salim sëñ bu mel nii mu mel yomb yomb la ah ah ah. ah ah ah ah xam nga ndeysaan jàng saala TV moo couvrir bis bi yëpp la ko dala ca ndékki ya ba ca alxuraan ja yëpp kon na ñëpp dugg abone ngir seetaan liggéey bi bisub Serigne Mouride Dia bi le 15 juin 2023 man xuma maa ko wax ànd ko jàng saala TV TV TV rawatina fii réew mi toll nag ku ne gis na lim ci def ba budul ko nak mom lambay làmbaay ñaaw li ko yi di waxe kon jaaduna ñepp ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër ba lim yene liggéeyal señ Touba lim fi fekk ci ay naali fi magam yi bàyyi ki bayam mu yeggalé ko to sumu ay naali bopam ba yeggalé lepp te and ko wër ak tal ba mon ko defé nim ko na at yu tambali ren kuko wax nga dundu at yu tambali ren sëñ Muntaxa yàlla na téeméeri at yu tàmbali ren ku ko wax yàlla na sa tabaski neex sëriñ bi ñu ngi lay siyaare bu baax Mbàkke Balla yow mi nga xam ne yaa nekk ci jotaay bi sunum sëriñ Touba ñu ngi lay siyaare di la jox sa wàccuwaay bu baax sëriñ Saliou daf ñu daan wax ne ku la gën a jege sëñ Touba ku ne moo la gën te ñun yaa ñu gën a jege sëñ Touba ndax yaa fi sant Mbàkke kon wàccuwaay boobu la yàlla jox ñu ngi la koy delloowaat ba mat sëkk di la ñaanal li nga yéene ci sa yoonu maam yi yàlla may la noo ko yeggalee. di siyaare nag ak a sant sëñ murit mi nga xam ne moo woote bis bii di ko sant bu baax xam naa lott nañ ci wax ci moom sax waaye ni ko nit ñi di waxee man duma ko waxe noonu diw matuma ci moom seede murit mom matna ci mom bu baax sédé ndax xamna ko bu baax yag nañ lool amna fuñ jaar ci ay barab yu béré béré béré béré béré béré yo xamné ne kenn diko netali ci mbolo waaye dañuy wax ne wa ma shahidna illa bima alimna alim na ci nit ki mom li nga xam sédé ci yow nak bi ci ñëk ta doy ci sëkk rek nit ku baax nga te yiw ñaar yoy rek teunk na lepp te yow nit ku baax nga nit ku yiw nga nit ku yaraw nga nit ku am kóllëre nga nit ku am warma nga nit ku am ñitti nga yi jikko ma lim yépp dajé na ci yow taman duma jay nit duma né mukk nit yalla nuyu na la te gisuma ko jikko yi may sédé ci yow bu nekkutoon ci yow duma ko sédé bu ci yow sama jaxaso ak yow ci nim mel duni mel duni amé man ngi jéggalu sax du ma kañu mm. waaye fi ma bokk ak fi ma yaroo ak ki ma doon ak kiñ ma tudde lu bëree bëree bëree bëree bëri mayuma may jaxasook yenn nit yi xew xewuma jikkoy kenn nag xew ma melew kenn ndax ku ne ni nga mel yàlla moo la ko def ñi jub yàlla la soob ci ndimbalam mu jubal leen waaye ñi mel safaan ba yàlla la soob mu melal leen noonu yàlla na leen yàlla jubbanti waaye man duma ànd mukk ak ku ñuy xebet jikkoom waye yow ku amé jikko ju bax nga li ñi wër ci nit yépp yenenbi bi alayhi salatu wasalam yalla sun borom taggu ko ci baye ju bax taggu ko ci makka gi mu juddoo taggu ko ci lim ko yonni ci ñun taggu ko ci dara jikko ju rafet la ko taggé te yow jikko ju rafet mo nekk ci yow jo xamné ne sëñ da daan wax né na ngeen defar seen jëm ba ku leen gis xemmem leen waye na ngeen seen jikko ba ku ak yeen du bëgg takaliko ak yeen te yow sa jikko képp ku jaxaso ak yow am nga jikko ju rafet maa ngi siyaare sëñ naa mi nga xam ne mooy sa jëwrin ci xasida yi di ko wax ne sëñ naa sëñ murit de nit ku baax la maa ngi la koy seedeel waaye maa ngi koy seedeel ay bokkam murit nit ku am yitte la nit ku yiw la bis bii damay eh, jël sama oto rek yeewu jóge went wit jëm ba boori garage bees ba bay tollook fii ci li yàlla def mu woo ma téléphone ma yow de dama lawan soxla won sax ma ngi don wajjo waajo ngi sa kër ma ko maa ngi wajjo rombu sa keur ma dama la soxla won waye kon jaar fi ma ñew mu sama bis bi ma daan defal sama wayjur ren yow la ko bëgg tuddé tudde wala yow la ko bëgg dara jaale lu mu ci mëna don rek ne ma bis bi mom sa bis la won naka jek kon amut luñ ci yok wala luñ ci doli dañu jël ciil bi rek jox la ko mm. mu doy ma sëkk nag mu saf ma lol mu neex ma lol ndax xam nga lutax damaa xam ne yàlla kepp la giñ naa ci sëñ Tuubaa li ma wér te wér ni ma leera ne lii juróomi baaraam la la ma wér ne cër bi nga ma jox ci bis bi yàlla képp la ak kóllëre dogu naa ko ci alxuraan ma seedeel ko say bokk seedeel ko ñi ma àndal seedeel ko ñuy dégg ñëpp ne kóllëre ak yàlla kese kese kese kese nga ma delloo cër bi waaye séentuwoo ci leneen ndax aw nañ fu bari jaxasoo nañ ci lu bëri ma xam bu baax yaay kan xam loo namm xam looy def xam looy bàyyi amna fuñ jaar fu bëree bëree fëri bo xamné lu ñuy wax fi wayé bu sédé lool rek mu mat sëkk bis bi yag nañ ko and di ci di la ci santal ñaar nak mo xamné man ma lay santalal sama bop muy señ mbol Ndong murit mbol nit ku bax la nit ku am léré la fo nekkut fu né jaar na fa ci sa ginaaw di la rafetalal waye señam di cham loko japon dolli koo jàpp nit ku baax la loolu moom man maa ngi la koy sant di ñaanal ni nga ko waxee léegi nag suñu waajur bu baax wi ñu daan fekk ci kër gi soxna waalo yal yàlla dolli ko njéggal ak yërmande fa mu nekk ca barsàqil muhammad yi ak mboolem ñu mu fa fekk ñëpp ak ko fa fekk ak sa waajur wi ngay defal bis bi nga xam ne moom nga sosaloon bis bi bareen soxna waalo dollee ko ci ak sa maam ji ngay ñaanal ak mbooleem way dawli yëpp yàlla na leen sama borom yërëm te jéggal leen yal na leen jotale ci yoolu ñaan gi am na ko ko wax léegi sëñ Ousmane Mbaye mii tey li ñëpp yow waale li ma Mamadou Mountakha santaane woon muy jàng alxuraan ak salaatu ala nabi ngir ñaan jàmm ci réew mi fi réew mi toll. yool boobu yàlla neen ci yàlla jotale kon sëñ Murit maa ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla mi nga xam ne moo dogal suñu diggante suñu kóllëre mu sàmmal na ko làqal na ko fa yàqkat bi yeggut. amiin di nuyu bu baax sa soxna soxna Marème. diko ko sant nag bu baax momit ndax jambar la lol <laughs> maa ngi koy sant diko nuyu nuyu ñima andal nak serigne Cheikh Ndigal senior mi ak serigne Cheikh May Jang mi murit ma sédal la serigne Cheikh May serigne Cheikh nit ku goré la serigne Cheikh 88 lañ ko jox serigne salim man 89 kan la judd ñaata at la ma magee Cheikh May Jang 88 lañ ko jox Serigne Saliw man 89 la judd xolal lim ma mage xolal lim ma ñëkke ci Serigne Saliw murit Cheikh may mi mais ñew ci daara ji di nekk tu tank ño bokkon kuréelu xasida buñ daan jang ku Serigne Saliw ràññee won am jangam la lim wax léegi man dana ko sédé ndax sédé ci nit ki yegg di wax ak ki yër di wax bokut dañ daan jang xasida ba ci digg bi serigne bi nañu noppi la ñu mu ne ana cheikh jang mu ne ko maa ni mu ne ko debbe ko liman man maa fekk ku daan jangal seigne saliw nak waye sama ak mom la lay sédel rek nyep sédel ñep nit ku gore la nit ku bax la fu nek nek na fa sa buma gesso gis ko ci sama ginaaw mom ak seigne cheikh ndigal si ñoor mi lima wax ci mom mo ci nek momit ci magi dembu ya la mom 87 lañ ko jox sëñ bi 87 lañ ko jox bi ñom ñaar ñi ma andal ak sëñ Kàbb ndjay mi ci sama ginaaw nga xam ne wax naa ko léegi fàllu tin ma àndaloon dama ne ko buñ lay wërloo taalib yëpp daaru karim fal taalib yëpp sëñ Masamba fuñ la ko wërloo boo gisee kàbb wàññeekul ñu sëñ ma sàmba jur gënuñu ko bëgg sëñ ma Masamba gënuñu koo gëm nit ku yiw la nit ku baax nit ku gore nit ku tabe maa ngi leen di nuyu di nuyu sama doom sëñ Mourtala mi nga xam ne may xamante ak waay juróom booba paa bi ab garant la rek ca kaw Kaolack ang koy nuyu diko jox wàccuwaayam wayam oh, momit sama xarit la lol ak seigne lampu jaañ ak seigne Ousmane bay mi nga xamne nak mom wax ci mom xagn na sax nima ko beug deug deug duma ko man ndax nit ko xamne fum la fekk beug la sigil nit koku se nita fum la fekk nga jox ko nga ñak ko jox nga yor loko jox nga ñak ko jox fum la fekk dana la jox worma dana la sigil ba ñepp xam loolu nit ku gore moo ko man sëñ Ousmane ñu ngi lay sant di sant sëñ Xumma mii moo ko wax ah, di sant nag sa xarit bii sëñ Modou mii xam naa suñ xamante du déggante ay tur lay doon waaye du dëgg-dëgg ca nam kiyee waaye maa ngi jokk kóllëre sama diggante ak moom ngir sa jëmm ñëw nga ci man ba tàyyi ne ma soo fa jugee ne ci moom laa jëm wala nga jóge ci moom ñëw ci man ne ma ci moom laa jóge loolu kóllëre la kon boo ñu ko boolewaatee bis bi yàlla saxal yal na yàlla sàmm yalla na yàlla dimbali kep ku fi nek tay deg sama kaddu na waxat Cheikh Mamadou Mountakha yal na dund temeri at yu tambali ren ku amal njariñ l'islam ji la nan ko ñaanal mu yàgg fi te wir bu fi yàggee dana yàgg am jàmm ne ñepp ñaan seigne Mountakha yàgg fi te wir fofu lay daani ne samay kàddu ngir baña a guddal ndax guddi na toogaay métti na wa rahmatullah kilifa gi tok Mbacke ñu lay ziaré bu baax di la ñaanal suñu borom may la gudd fa nag wér bàkki roon Tuubaa jotaay bi yàgg na lool waaw ginnaaw bu loolu jàllee ñu ngi nuyu sëñ Madine mi nga xam ne moo woote bis bi miyentewuñ sax mën naa ne ñu ngi doog gisee waaye liñ ci dégg rek doy na sëkk nit moom bu baaxee rek nan ba xam mbokk yaa ko xam déet ay mbokkam ay mbokki boppam taxaw nañ fii wax ko ak baaxam kon ñu koy ñaanal fi mu bëgg yegg rek suñu borom yeggale ko fa ak seeru Xadim lii nag ay kàddu la yoo xamante nii soxna Fallou nii moo ñu ko yóbbante da jigéen moom fu ay kilifaam teew muy góor kàddoom wut a jub moo tax ñu jël kaddu gi waaye ay kaddu sant rek la ay kaddu ñaan ndax nee na moom fi mu ko teg kawe na lool ndax dafa rom bunt kër yu bari fii nii mu tuddee ko bis bi dara jaare ko ko kon loolu lu kawe ci moom nee na ngi sant bu baax di ko ñaanal suñu borom yokk ko yokk fanam ndax nit kat bu dundee am wér lépp lu bëgg liggéey suñu baax na ko liggéey nit bu nit bu fan rek am wér lépp lu bëgg liggéey suñu baax na ko liggéey kon loolu moo mat a ñaan wér ak gudd fan mat a ñaan ñee moo la ko ñaanal bu baax a baax baax ndax fi ko teg gis nga bu baax ko ci ngir alal lu ko rek ak te yàlla tax rek moo tax nga ko bis bi nee na it yi nga xam ne na ko sa waajur mi nga ñaan ñaanal ko ko mu ne bi ñu waaj a màggal rek la fi bàyyi ko nee na kóllëre googu nga topp kon yàlla kóllëre googu yàlla mu tas yàlla ak suñ Tuubaa gën a sàmm bu baax a baax a baax nee na moom daal xolam sedd na guy moom li ñu yóbbante woon ëpp na lool sax waaye dafa guddi te kilifa ngi li nga xam ne moo toog moo tax ñu xaw koo gàttal rek waaye daal. yëpp cant rek boo xamanteni bu nga santee nit mu bëgg lool sant na lako xana kay nan ñu wi ak xaw a ragal nit ni motax mënuma yegg sama kaddu waye sant na mu baaxa baaxa baax a jëf jërëjëf yal na yàlla guddal fan mu baax te wéral la barke xasida yi jërëjëf barke jërëjëf kon ñu ñu ñu ñu ñu jox ko teraanga ji ñu jox ko teraanga ji sëñ Seexuna daal di yéeg sëñ Baara ñaanal mbooloo mi

ah waajur wu jigéen war na ko jox. may ma ko may ma ko may ma ko. kii lu mu ja am yaayam ji la lu mu dem yaayam a lu mu di dox di wut bu ko amee yaayam a kon soxna Fallou li nga def rafet na ko yàlla yàlla defal na jàmm ci barke Sëñ Touba lii rafet na lool gis nga jigéen ak góor ba da ngaa xam ni baax na nga dem ci digg àll bi nga demee gaynde ba da ngaa di góor naan jigéen da ngaa war a ko nopp gars yi bu ñu leen commenté maa jigéen la waaye nit ñi nga am ci gaynde moom kon jigéen baax na góor baax na soxna Fallou yàlla sa jàmm yàgg waajur wi ko jox di rafet kon sëriñ Bamba Xaadim ñu njëbbal googu ñi ngi nuyu it mbooloo mi fi teewu ñëpp nuyoo boo xam ne nuyoo bu lislaam la te loolu moo di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu muy yàlla yàlla def ci yéen barke ak yërmande di am mbégte bu baax ci dund ak yéen ci jotaay bi ñu ci sant Cheikh Mouhamadou Awa Balla di ñaan yàlla ñu ko yàlla doolee fayal sëriñ murit di ci ñaanal ay waajuram yàlla na leen yàlla doole yërëm te yërëmaale mbooleem ñi nga xam ne si ñi ngi ci biir jotaay bi jotaay bi nag dégg nañ fi kàddu yu ñu neex yoo xam ne ci mën nañ koo yóbbuloo daanaka ñaan rek la comme sëñ bi bi mu jëlee kàddu gi rek mën nañoo yóbbaale ñin ko tuddee ñëpp yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen sutura defal leen barke sàmm leen di nuyu sëriñ naa Mbaj mi nga xam ne it day jàng katu xasida ànd ko ak ay mbokkam ak ay xaritam te nekk fi ñoom ñëpp macha allah sëñ njàpp mbay it ñu ngi koy nuyu bu baax ñoom it ñu yóbbaale ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi. suñu leen tudd di tudd ñàkk tudd gi ñu ngi koy soppee ñaan muy képp ku fi nekk day yëg di xasaayit yàlla na la yàlla defal barkeb xasida ci barke Seexul Xadiim nga mën see jëriñu àdduna ak àllaaxira te rafet nañ ci njort bu baax ndaxte jamono bu mu mën di doon ñu ngi leen ciy dégg. gëj nañoo gisante lool nag waaye yitte ji rek moo ñu tënkoon waaye nag lii lu am solo la sëñ Mouride li nga wootee ndaxte ñu nga gëj a gis ñëpp danga nga leen di gis sëñ Gora mu sëñ Seexaw Balla ñu ngi koy sant bu baax sañ Xuma kasaalika sëñ Ousmane it kasaalika ndaxte nit bu yoree làmmiñ bu rafet te di ko yëkkati saa bu gisee nit wax ci moom lu baax rawatina li xew jamono ji nga xam ne lu ñaaw rek la ñuy dégg guddeeg bëccëg kon bu ngeen dee dégg ci yéen dañ leen ñaanal yàlla guddal seenu fan te defal leen ak wér ba fu ngeen bëgg a mën a teewin ngeen teew fa akuk wér akuk kàttan yal na la yàlla dool yi dimbali bu baax a baax sëriñ Baara Mbay mi it da sama wolleeru bu baax a baax ndaxte xëy na li temps bi gàtta tax waaye kon bala maa yëkkati kàddu gi day yëkkati xasiida ndaxte jàng ko xasiida la te it dañoo bëgg fu fu ñuy dégg nit kuy jàng xasiida rek ñu ñu dégg ko fa tey rawet na suñu jotaay muy doon suñu xarit bu baax a baax ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla dafa ko sutura defar ko barkab xasiida sëñ bii li nga woote lu am solo la mboolem ñu la fi wuy ji ñëpp nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen sutura defal leen barke bu a baax ñu yàgg laa wuy si ndaxte lii mënut a ñàkk ndaxte doomu aadama bu man di doon dafay dund ci ñaar ci baynal yasir wal usri ci jafe-jafe ak euh, ak jàppandal bépp bu mu ci mën a doon nag kilaaxuma ñoom ñaar ñëpp xéewal ngi ci bu dee jafe-jafe la nga muñ te sant yàlla yàlla dina defal wariñ muñ yool bu rëy rëy rëy bu dee lu neex la it da ngay sant muy lii ñu def yàlla inna ay la ajri muhsinina du du sànq yoolub ñi nga xam ne ñi ngi def rafet rawatina ngay sant nag kon lii ngay def yàlla na di dooli dimbali dooli la si sutural baax a baax suñu xol sedd na si baax a baax a baax yitte yi rek moo mel noonu te wax dëgg yàlla am na mbégte si yéen jotaay bi yàgg na lool waaye li muy yàgg-yàgg yàgg it yëguñu ko ndaxte lii rek la na am ndax té amna lu ñu tënk ci jamono ci suñu portable sa boko dé lo ci defut bu fekkee ya ngi koy déglu wala nga dugg fa neen da nga déglu la neex déglu la nakari way fi biñ fi toogee ba légui rek yalla ak yaronte bi Sayxul khadim rek lañ fi déglu kon yeen ñi ngi fi nekk di jang jàng xasida yàlla na la yàlla defal barkeb xasida bu baaxa baaxa baax a cheikhuna ñi ngi koy jaare ci yow nga jàttalil ne ko mbolem ñi fi nekk ñepp nak wax dëgg yalla ba wuñu kenn ndaxte daa neen gise bu yàgg-yàgg ci sëñ Fallu bu Buso mi ngi nekk gédé nga daa jàng guddi laylatul xadr guddi kasra Rajab gogou boobu ba léegi ñu ngi koy bàyyi xel su mun ko bu ma gisante ak moom di la ko laaj yàlla na yàlla defal barkeb xasida sëñ jàpp it ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax sëñ murit yow mi nga woote bi ak ñu nga ko tuddee suñu xol seet na ci baax ñun lii mooy muy sunu mbégte lii leen am comme que nag yitte ji bari na te jàngkati xasida yi ñoom ñëpp teew nan te defuñu lu déglu xasida yi ndaxte lépp lu luñ ciy sàkku mën na ko fee indi lépp lu ñu ragal mën nañu koo dàqal mook alxuraan ji ngeen fi jiit wante ci suba lool nag suñ xol seet na ci bu baax a baax yàlla ngeen ko teewe bu baax a baax a baax li bi wax nag sañ mbool ndong moomu ak sëñ seex ndong it ñu ngi leen di nuyu baax ñoom ay xale leen waaye suñu wëlëre leen te fépp euh, lu mel nii buñ fa demee fekk leen fa loolu dañ ci am mbégte bu baax a baax baax a baax mboolem ngeen àndal ñëpp di yëngu ci xasiida yi daal ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla defal barkeb xasiida saahiran wa baatinan sant nan bu baax a baax gërëm nañ leen bu baax a baax a baax lii rek mooy li am solo soxna sëñ soxna faal lu ñu ngi lay siyaara baax te di la ndokkeel ci bis bu baax a baax a baax ndaxte lii mu la defal ñun ñii la ko defal waaye yéen ñi ko wuy ci it ñun ñi ngeen ko defal ndaxte murit dafa dafay ku baax koo xam ne jo jotaleen guddeeg bëccëg ñu ngi daja ci jotaay yi kon bu ñu woowee ci bis bu mel nii mënuñoo def lu sant yàlla kon sëñ góor a santaan nañ leen bu baax sëñ Ousseynou sëñ Ousmane sëñ ma wax dëgg yàlla ñu ngi leen di béggewaat si seen kàddu yi ngeen yëkkati delloowaat na leen ko yéen ñëpp nag amul kenn ko xam na nag bàyyi nan la kom ko jànkat bi mu ngi ni teew te yitte yi bari na lool lool lool te suuba tey ñu ngi koy woo kon nañ ko bàyyi rek mu àggale ko kon yàlla ñu yàlla defal sutura defal ñu barkeb xasiida ñu teewe koy déwéni déwén te ànd ak wér-gu-yaram soxna yi it ak waajuróom yi muy ñaanal ak mu Modaw Ball yàlla na leen yàlla doole yaram ñoom ñëpp yërëmaale ña fa fekk ñëpp it li mu fi jàng tey ji ci alxuraan te sëñ Sidi sëñ Cheikh Mouhamadul Muxtaar Cheikh digle woon ko yalla na doon fajug aajo ci mbolam aduna bepp it kon ku nek na jang fatiha ak faalaxe ak nasi ñaan yalla def yu ak barke ci rewmi mbacke jere jërëjëf ay repp wante naar ba si di gawan. Cheikh Awa Balla ko doon nuyu mayam di baawaa mbokki Touba mbokki Sénégal menuiserie Touba Darou Marnaan waa kër Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke Seran Moustapha Aw place mi ngi nekk kër Baye Laat ngir mën a jokkoo moom ci numéro yi 77 055 94 12 wala 76 281 05 51 menuiserie Touba Darou Marnaan dañuy defar ay chambre à coucher di defar porte bois waaye yemuñu foofu dañuy defar rampe escalier dañuy defar tamit fenêtre waaye dañuy defar porte aluminium dañuy defar porte verre métal métallique euh, baywun dara dañoo boole métallique a eh, bois ak métallique ak aluminium soo demee Moustapha Aw di ndaw sawar man li def macha allah dina la taxaw ba sa faju waaye yemuñu foofu am na menuiserie tapisserie yi defar ay solo yu mucc ayib ngir mën koo woo ci numéro yi 77 881 05 51 ministère Touba Darou Marnaan waa kër Serigne Cheikh Awa Balla fële lépp yi baaxee féerul fa xajjana fa xoorul xayni may wax ci say jaloori kulli